tës ñebe muy bët bëri si dëgg ak si jaam ak salaam waaw di bët bëri di mut muti boog waaw man la sum di fut futi alors maa lay bëggee di la siyaar maam Saliou di nuyu sénégalais yëpp yu seedaan bisimilah. Euh, but but buti tous yooyu yooyu xeetu xeetu terme fan la jógee. waaw noonu la demee mooy but buti rek mooy baatin maanaam. si li feeñ si dëgg bi rek waaw parce que dëgg moo njëkk te moo mujj te moo neex yàlla yaa ma gën a xam alors rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli tawakkaltu ala allah laa hawla wala quwwata illa billahi al azim salaamun qawlan min rabbi rahimin kulama awqadu naaran lil harbi atfa allahu bismillah ah, yaa ngi mosu ci seytaane ak làmmiñu bon ak affaire yooyu noonu lan moo waral loolu parce que gis nañ xalifa euh, jamono yi ñu nekk actuellement Médina yëngatu na trop mu am euh, ñoo xamante ni dañuy xëccoo li nga xamante ni maanaam euh, moo di mairie bi ku ci mel ni Bamba Fall Cheikh Tidiane ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu gis ni violence euh, daawuñu ko baaxoo di gis fi nga xamante ni moo di Médina mais dafa mel ni démb ak bërki démb violence yi ñu fi gis dafa xaw a takkarnaa si lan moo waral loolu. waaw alors en tant que doomu Médina en tant que artiste rappeur porteur de voie waaw. entre parenthèse rek pour fàttali ni gaa ma la sum waay ñun duñu ay militant Cheikh Ba da si ay dëgg mais ay doom Medina nañ ñu demee ba maanaam gis intérêt Medina si benn jëmm wala benn doomu aadama xam ne lii mooy général u Medina mooy maanaam avenir u Medina si lu baax ñun en tant que artiste rappeur porteur de voix ba pare ñu dem ba xam ni gox bi askan bi maanaam askanu Medina ñu ëpp si askanu Medina kooku nañu àndal bu ko jox suñu Médina kon ñun saawaay xoola ñun askan wi nañ àndal quoi si fànn wu ne muy si Médina bu ñu dëkk ak tamit si Sénégal en général est-ce que dégg waaw tey si tey ñun duñu ay militant Cheikh Ba mais dëgg nañuy wax te yàlla rek a tax est-ce que ay dégg voilà alors violence Médina moom si benn doomu aadama kase kase kase kase kase la juge muy Bamba Fall Bamba Fall mini maire de la Médina l' ancien mini maire de la Médina parce que nekkatul maire Médina instant bii nii mandat am jeex na ñu ngi si campagne mais moom looloo ko tiital parce que xam nga tey si tey maire bu liggéey buy def campagne si bilan lay campagner day ñëw génnee bilan am génnee li mu jot a liggéey pour askan wi parce que askan wi daf ko dénk lu dëgg mais Bamba Fall deful dara Médina lu dul sàcc. moom daal lu Medina bi yëpp gaamal la sum waay sàcc na ko ay dégg waaw def fi ay mafia mauvaise gouvernance banditisme bu amul fenn est-ce que ay dégg te si tey nax looloo tax loolu moo tax maanaam Bamba Fall campagne am ak pré campagne lépp violence la maanaam. est-ce que nekkul tamit yéen a yéen yéen a koy fekk ci zone am bëgg li nga xamante ni moom la yor tax moom muy euh, muy euh, wane li nga xamante ni moo di violence wala muy indi li nga xamante ni moo di dooleem. Bamba Fall pré campagne yëpp déggoo ma la wax pré campagne am yëpp si la ñëkk wane maanaam si la ñëkk woote si violence parce que xam nga collectif des jeunes de la Médina bi nga xamante ni c'est apolitique man fa laa bokk ñun collectif des jeunes de la Médina intérêt askanu Médina ni ñuy défendre ko xeex si fàllu mu ne nax jamono si novembre bi def nañ benn match de gala ak police Médina di football ak ñoom pour maanaam lancer message non violence à la Médina dans les campagne local yaa ngi dégg mais Bamba Fall pourtant nee na moom saa yi mooy maire Médina mais bu amoon classe nekk responsable nekk kilifa mat kilifa dëgg day rafetlu loolu ba pare génn taxaw ne non violence moom la ñuy woote si Médina pour suñu ay doom ak yëpp mais xoolal da ka ñaawlu booy wëlbatiku di def ay meeting am di gaaral booy. booy du ñu menacé dàggasante xiiroo ngaayoo kase laan def génn di gaaral naan ay ay rappeurs yu dof xama di saaga nit yi tey si tey ay njabootam ñëpp maam yi nga xamante ni ay jeune nañ moom moo leen di woo si loolu di leen sant maanaam à que ñuy saaga doomu Médina yi fi ngi leen gi song leen guddi yi maa xa yow booy yëpp jënal na leen ay jaasi jox na leen ay arme day dem ba cité imbécile. mais Khalifa li nga wax nii rëy na de. barki alxuraanul karim billaahi wallaahi wa tallaahi lu ma boo ndee boo bëggee nga indi kaamin ma waat ko. man du ma fen te du ma tuumaal duma sosal doomu aadama Baye Fall dëgg laa wax te yàlla rek a taax booy cité imbécile yi la recruté. est dégg tamit ak yeneen booy yoo xamante ñu ngi si taan bi man xam naa si ay booy yu bëri ba ma Fall da leen man la sum waay leen jox chaque jour ñuy mànd di jox leen sàngara ba pare jox leen ay jaasi ay arme barki alxuraanul karim tey si tey premier jour campagne yi muy samedi Fawad di militant wu Cheikh Ba nekk jigéen bu ñu respecté bu diñ si Médina bi nekk femme mariée ba pare am ñaari doom ñëpp xam ko si dëggal jubal leeral yaa ngi dégg man daan naa fréquenté côté koñam yaa ngi dégg mais xam naa ko bu baax baay uy ma gaan uy ma ngir yàlla baay wala boog nga mu toog noppi wala nga dem nga toogee ne quoi yaa ngi dégg alors Fawade man yàgg naa fréquenté koñam mais xam naa ko bu baax jigéen bu valeureuse la bu digne yaa ngi dégg mais Fa Wade benn militant wu Bamba Fall bu nga xamante ni nii kooku naa leen wax kalla ki attaqué Fa Wade jël ay lemset yàq keneen parce que loolu tentative de meurtre la tentative de meurtre barki alxuraan parce que bu askan wi daw si gaaw heure bi leneen la ñuy wax parce que ku jël ay critères affaire yi ñuy opéré nit. nga tiim saawaay jigéen booy ak jigéen nga xam ni kanamam mooy lëppam nga tiim ko saawaay xoola di ko xotti di def lu ne bu askan wi ñëwul woon heure bii nii ñu ngi naan meurtre à la Médina. fa fa de meurtre te ki def loolu. vidéo bi ma leen doon wax fan yéenee passé di ko wax askanu Sénégal vidéo boobu mocc naa ba sonn ki yor vidéo bi Maxime ngi États-Unis ngir yàlla wa rasulullah génneel suñu vidéo pour askanu Médina pour Médina xam ni Bamba Fall mii nii du boo amee saay-saay da nga koy wili pande ñëpp xam ni kii nii la men te baaxul si Médina vidéo boobu noonu Bamba faal gel boobu noonu blessé maanaam faawaad si kanam gel boobu noonu la téyewoon di ko tëddee samp ay loxom def nii position grenouille mbott bi di ko taam di ko zoose barki alxuraanul karim du ma tuumaal te du ma sosal doomu aadama seetaan naa vidéo bi nii te maa wax si mu génnee vidéo bi est-ce ay dégg moo tax gel yi bu mu déggee loolu bi mu déggee faawaad xam loolu noonu di si communiquer si le titre dem maanaam rëbb ko àndax maanaam association malfaiteur am enquête bi incha allah dina révéler lépp yaa ngi dégg waaw mais dafa maanaam wër faa wàdd àndax ñeneen ñu jàppale ko ba mu def ko jëf ju ñaaw boobu muy samedi. ñu xëyaat si dimanche bi mais Cheikh Ba candidat la am na droit dem fu ko neex si Medina bi àndax saa waay xoola ay militant am ñu dem rencontrer askan wi mu wal leen ay projet ba ay programme am du dég Gibraltar la waroon dem dimanche Gibraltar ñëpp xam nañu Bamba Fall fa la dëkk yàlla def na moom ay dëkkandoowam sax ñëpp bàyyi nañ ko ñëpp xam nañ ni kii du dara Cheikh Cheikh ba nañ àndal. militant wu Cheikh Ba bi nga xam ni dëkkandoowu Bamba Fall la fee si Gibraltar Cheikh Ba fa la waroon dem fa nañ ko invité woon añ. mais ba man damay wax de te yàlla tax quoi man waxuma parce que dama far ak kenn man faruma kenn man dëgg laa faral askanu maintenant est-ce que yaa ngi dégg voilà Ba sax bu fi defoon yu baax faal di def ñu génn dal si kawam est-ce que yaa ngi dégg ma ma ñëw Cheikh Ba bi muy dem foofu noonu gaale boobu noonu pour añee fa si la dajale moom ay booyam yëpp ax booy su dee imbécile yi mu recruté nervi mooy li ma la wax ne leen gars bu ñu agsi looloo indi woon démb coow bi ci Gibraltar loolu kase la barki alxuraan booy nekk di sànnante xeer mais booy mën naa yi seen baxen nañ si teg te Cheikh li mu nekk borom baax sax nekk joli cœur bañ violence moo tax booy heure bii nii saa waay xoola demuñu fekk baa ma Fall fu mu dëkk wala yeneen booy lijjanti leen parce que ñoo leen ëpp fuuf mais Cheikh ba saa su nekk mu ngi dalal booy leen wax ni moom bugul jël Medina maanaam si kaw ay néew bugul jël Medina si deret bu bëri xam lu ma lay wax nii waaw moo tax mu koy teg si yoon quoi mais te yàlla rek a baa ma Fall maanaam yàlla rëbb na ku yee fitna te fitna bii nii yëpp na xëpp si kawam parce que démb am na groupe boo yoo xam ne mer nañ rue 11 nañ ko fekk dem tas mitingam kusum boobu noonu rue 11 man saa man doomu kusum laa rue Anglaise laa juddoo ba léegi sama gaale mi fa. ba kusum yëpp man la gaan sum waaye xoola baqen nañ si teg pour maanaam Bamba Fall jugee fii. xam lu ma lay wax nii ay presse ay benn ñaar vaurien ngay gis si kusum bi ñu taxaw ne ñoom Bamba Fall nañ àndal parce que xëy na am na fu mu leen jaar wala mi ngi leen di jox benn wéccit xam nga mais mauvaise gouvernance bi am Medina par la force incha allah xoola liñ yàgg xeex ay mois naan Bamba Fall dégage ñu ngi si cëppaandaw li dañ ko fi jëlee benn yoon xam nga liggéey suñu Medina incha allah si jàmm ak salaam loolu yaakaar naa jarul fitna jarul xiiroo jarul ngaayoo Bamba bu dee dëgg la te yàlla tax. bu dee wóolu na boppam dafa war a génn woote non violence mais du def loolu. mais est-ce que est-ce que pour Bamba Fall wàcc euh, tax na violence di am. parce que aussi yow sa biir wax yaa ngi ni Medina moo la ñor Medina moo def lii médina moo def li mais tey est-ce que euh, yéen waa médina loolu moo nekk war a nekk seen réaction maanaam pour sànnante ay xeer tojante bopp génne fii ay nervis gauche droite loolu moo war a doon seen seen objectif. déedéet déggoo ma ne la ñun saawaay en tant que doom Medina novembre nañu football match ak policiers yi ba pare sensibiliser booy yëpp si Médina bi ne leen campagne non violence Bamba Fall du jël ay doomam di leen wàcce sur le terrain ay doomam ñu ngi Italie est-ce ay dégg ay mboqam yu fi nekkoon si Médina bi sax di sàcc alalu Médina bi ñii génnee na leen Médina ñii heure bi génne nañ réew mi barki alxuraan moom kese moo fi nekk nekk maanaam chef de gang xamul ma lay wax ni ñun tey see bëri na ay booy yoo xam dem nañ ba yeewu comprendre loolu bàyyi nañ Bamba mais am na ñeen ñoo xam ne ñu ngi nelaw échange dëgg ñooñ tey si tey ñu dañuy def la tout ba ñu yeewu ñu xam ni kat gars yi leen di def loo nii. waaw mais est-ce que la nekk. waaye dama ni la sa intérêt saa waay buy nekk na nekk si dëgg ak si jaam ak salaam échange dëgg tey seen ñoo xam ne dëgg booy ñu si jàpp am na ay booy yu ñu jàpp démb ay booy Bamba Fall ay nervi yaa ngi boo booy ñu si jàpp Bamba Fall lu leen seeti gël boobu noonu man la sum yi nga xam ni moom la téye woon si vidéo boobu noonu di ko time gël boobu noonu gis nga démb lu mu wax nee na moom gël bi affaire bi yoonam newu si problème la yoon lijjanti xam lu ma lay wax nii ku si mënti def problème nga am problème ak yoon wala problème ak sa wér-gu-yaram ak lépp yow yaa siy wéet waa yaa say mboq. kon booyee nañ yeewu tey si tey tamit mooy lu ma la wax yaakaar naa ku ñu dénk maintenant yaay maanaam première personnalité maintenant yaa war a nekk maanaam premier kilifa di montrer la bon exemple xam nga moom moo waroon ñëkk mën a taxaw ñun collectif bi li ñu def noonu ne non violence moom moo waroon taxaw waxoo mais moom saa waxul lool de xam nga la la wax nee na Medina mooy borom te nee na képp ku koy jëlee Medina ndeyam juddoogul ba ma faal nii la ko waxee barki alxuraan vidéo yaa ngi fi yaa ngi dégg tey si tey booy balaa may dee ñu naan moom mu naan xaw ma ay Cheikh Ba xaw ma parce que Ba nee la mooy intérêt askanu Medina te waa Medina moom moom moom. saa waay xoolal nañ koy falee. est ay dégg te tey si tey moom li muy wax noonu rek moom mauvais argument la parce que naa yëgal benn affaire xëy na askanu Sénégal xamuñu ko mais Bamba Fall moom baayam mooy géwélu juddu Marème fay Sall kër Macky Sall fële si Mermoz du fa jug barki alxuraanul karim day jég saa ay woote commandé maxal wala ceeb bu tooy wala daxin wala suppu kànja yaa ngi na toggal leen ma lii tey fa laay añee barki alxuraan bu nekkul Gibraltar mu dëkk nii mi ngi kër Macky Sall Mermoz bokk na si premier dunguru Macky Sall yi ak Marème Faye Sall xam moom comédien la fu mu toog di waxtaan ñëppay daajeeku maanaam Marème Faye Sall day bëgg di añax moom xam nga di toog moom ay jotaay mu koy daaj yi est ay dégg voilà kon bu mu ñëw du ñu jéem a lëre du ñu jéem a teg xel naan ay Macky Sall yéenee xam nga moom mooy premier dunguru Macky Sall te moom Macky Sall ak Marème Faye Sall sax ñoo ko sauvé ba nga xam ni heure bi nekkul si kaso bi parce que moom kese mooy maire Sénégal bi ñu fi jàpp maanaam ak plus de trente cinq chefs d' inculpation suñu cour de contrôle yi. imagine loolu plus de trente cinq chef dinculpation ay mafia banditisme yu kalaate balaa may deegaamal la sum waaye mu dajale ay grande gueule ay xaw ma ay Fabrice Ngama xaw ma yow Fabrice Ngama yow gars yi sax nee nañ yow doo sénégalais nga dem beneen quoi wala sa dëkk foofu nga dem nga campagne foofu. Ah, mais waaw mais non non defal sa naataangoo la mais xam nga ban mafia moo am foofu xam man mafia moo am foofu non taxal ma tegal la mafia bi am foofu xam nga la la daa dajale grande gueule yi may leen ay panneau publicitaire fii si Medina bi barki alxuraanul karim parfois nee naa man du ma tuuma du ma sos boo nee Kaamin ma wàll li may wax man dama koy saa waa ji ay panneau publicité lay may ay Fabrice Ngama ak ay ñeneen ñeneen ay grande gueule pour ñu koy défendre mais ñooñu dëkkuñu maintenant xamuñu daray maintenant te amuñu fi sax ay mbooxu xam nga ñu bëgg ñëw bëgg ñu emmerder waa ndax lan bëgg jël àllu maintenant bu ko tënk si benn groupe kase benn groupe kase ñooy moom maintenant.

ñoo ne Bamba Fall sàcc bu ñàkk jom la est-ce dégg parce que nit ki kat gaañamal la su mun na sàcc ok mais ñu jàpp la flagrant délit si yu bëri nga wol ba tiku gaan gën a ñàkk jom gën a ñëw teg ci sa baqe ne par force maintenant yaay borom que la fiy jëlee ndeyam ju doogul di dajale gaañamal la su ay wuyu indi leen si maintenant bi dajale booy yëpp jox leen ay arme ah booy léegi maintenant bi li xew dafa ñaaw da ngay romb booy booy gars yi di la saaga xam nga man la fu ñu la jéqoo attaqué la man moo tax tey see man non violence yi ma waxoon démb moom moom laay wax ba tey sama waxu démb mooy sama waxu tey mooy sama waxu suba incha allah mais ndax kat jël leen seen matuwaay ah, jël leen seen matuwaay ab sagaru nit koo xam ne ndeyam liggéeyul Médina bi ñëpp xamante nañ ñu si ëpp si ñoomal la su ma waay seen yaay ñoo doon cagatu démb fii si Médina bi. yaa ngi dégg tey ñoom ñooy topp Bamba Fall di tëbëk dal mu leen di fay cinquante mille cinquante mille franc leen di fay par mois. te bu ñu amee soxla wala problème sax Bamba Fall du leen lijjanti est-ce dégg tey say nit ñi nga xam ni intelligent nañ sax jeunesse consciente bi yeewu nañ ne Bamba Fall mi dafa réew bàyyi ko dem si xooli leneen est-ce que dégg tey si tey sagaru nit vaut rien bu la naree rey saa waay xoola nga rey ko quoi yaa ngi dégg moo tax loolu jeunes yi maa leen di wax ngeen jël seen matuwaay doomu Médina yëpp mais nax non violence bàyyi leen ba ñu song leen ngeen fayu mais bu leen dem di songaatee te loolu jeunes yi comprendre nañ ko te noonu na ñuy doxalee parce que bu doon loolu kese la heure bii nii dem nañ fekk Bamba Fall fu mu nekk humilier ko def lu musul am saawaay Sénégal jël maire futti ko takku ko di ko xëcc wan ko askan bi yëpp ne ko suñu ancien maire baa ngi nii sàcc bi est-ce ay dégg mais naa la. bu leen nee wow gars yi booy yuux wow wow wow wow est-ce nii na dajale ay ñabootam yooyu ne leen non violence ñu réglé ñu yem. sinon liy raam si ñag bu la jëm seen yi ñu tàmbale nii samedi ak dimanche bi nga ko continuer gars yi nañ leen duma duma yu wex xatte su boobaa ñoom la ndax lu waay rendi si loxoom lay naaj du dëgg. waaw ñun tey say en tant que porteur de voix dëgg bi nañuy wax te yàlla rek a tax ba ma faal newul si dëgg newul si yoon te mooy tooñ wax leen ko dëgg na yem benn place te maanaam. ay baayam muy Macky Sall ak Marème fay Sall ginnaaw ba ñoom ñoo tax ñoo ko protéger ba heure bii newul si kaso bi nañ ko wax dëgg wax ko mu réglé te mu yàmm. nga def révélation de taille tout à l'heure ci nga xamante ni euh, Bamba Fall nga ni da nga gis benn vidéo boo xamante ni euh, elle est en train de faire euh, il est en train de faire l'amour avec une fille mais loolu nga wax Khalifa dafa doon loo xamante la parce que ba léegi amul waa defal ndànk non defal non da may dëgg non defal def ndànk da ngay man sa dóor yi si plateau yeeg man boo ma dóoree damay fayu boo ma contrôlé damay fayu waaw mais parce que wa wa yaa seetaan yaa sa bët vidéo ki yor vidéo man man man naa la man nëba tuuma te man du tuumaa lu ma sosal kenn max doom mét la suñ grand frère la rue treize fee la dëkk est ce dëkk états la nekk moom moo yor vidéo saawaay bu Bamba Fall fu teeku yaram mu neen ñu ko yaayam juree mu def position grenouille mooy position mbott bi samp ñaari loxo yi téye gel bi mooy gel bi nga xam ne moo agressé Fawad fee samedi bi gel bi nga xam ne tey sax defeere nañ ko parquet def position grenouille mottu bi nii téye gel bi di ko time xam nga loolu tey say vidéo boobu xam nga la moo tax mag si ba léegi génneegu ko Cheikh Ba moo def pression moo géey si Gueye si Max ko vidéo bu mu génn parce que xëy na ñoom ñu ngi xool maanaam bonne image ak sutura tamit pour Medina bi. booy ñooñ ay nit nañ booy ba Bamba Fall bu amoon vidéo boobu noonu saawaay si Cheikh Ba wala si keneen gën na bu yàgg barki alxuraan vidéo boobu nee naa la du ay tuuma barki Baye Niass man seetaan naa ko nii saawaay def nii position mbott position grenier di dóor booy bi bu amuloon du ma ko wax loolu du diffamation man maa ko seetaan te max booy te yàlla tax booy max max gaan xoola jot na mu génnee vidéo bi quoi parce que ñun waxantuwuñu quoi ñun duñu tuuma duñ sos duñu fen dëgg nañuy wax lu ñu gisul duñ ko wax man maa si teg bët saawaay yi moo tax booy bu booy bu mu commencé dégg rumeur koñam commencé dégg rumeur que ni gars yi xam nañ ni moom la gë gel ah, bi moom la léegi dafa affolé tiit moo tax mu dem jëf-jëf wu ñaaw woowu noonu. est-ce que dégg noonu la demee booy saawaay ñun maintenant nañ dëkk de koppul moox mënoo ko jëw man sama pap sama yaay samay maam ñëpp mën naa saawaay fi nañ soxeekoo fi nañ juddoo fi nañ màggee fi nañ yaroo fi nañ dëkk ñun amuñu saawaay leneen lu ëpp mën naa bàyyi faal. est-ce dégg kon ñun lu ñu wax si mën naa du ay waxantu lu ñu maîtriser la waxoo ñëpp xamante nañ fu nañuy dugg si mën naa bi xam lu ma la wax tey si tey nag mooy lu ma la wax max lancé nañ ko message vidéo bi na génn bu ko defee askanu mën naa askanu Sénégal ñëpp xam ni. Bamba Fall mi wuyu du dara est ay dëgg wuyu da nga koy wili pande waaw ñun seen menaces yooyu seen saaga ñuy saaga si mbedd bi saanu nous fait ni son ni la preuve booy saa ñun saa yu ma saagee man saa damay taxaw fayu saaga leen ba pare neen du man ak yéen maak seen baay la. seen baay mooy kan. seen baay mooy Bamba Fall te Bamba Fall sax xeeb naa ko ndax man Bamba Fall nawloo ma ko man du ma nawloo sàcc. yow kon léegi da bëgg a àgg ci kaw. déggoo lu ma la booy. ba man ba Bamba Fall maa ko ëpp crédibilité fii si mim réew yaa ngi dégg ëpp ko fi maanaam respect yaa ngi dégg ëpp ko fi yeneen ak yeneen ak yeneen. ci ci ci Medina nga ko ëpp crédibilité. ci Medina nga ko ëpp crédibilité. waaw waaw non defal defal defal ndànk defal ndànk. non na naa naa wax ak. non defal eh. defal ndànk xalifa xalifa ci ci non déglu ma xalifa xalifa sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk ci réseaux sociaux yi nee nañ xalifa boppam la fi nekkal day wax rek pour wax. dëggoo lu ma la wax loolu tey si tey ñun lépp lu ñuy wax fii saa waay xoolal ku wéet xam sa bopp du dëgg voilà képp ku nga xamante ni maanaam yaa ngi wax dëgg te yàlla rek a tax ba pare nangu dëgg nekk nitu dëgg te yàlla rek a tax Baye Fall xam nga ni ñun saa waay lépp lu ñu génn wax man dëggalee samay vidéo nga xool amul benn vidéo boo xam ni wax naa lu dul dëgg lépp lu ma wax dëgg la te yàlla rek a tax à la base parce que man su may wax xooluma kii. xooluma intérêt xooluma dara maa ngi xool sama diggante ak sama borom moo ma jaaxal doomu aadama yorul sama wërsëg ak képp mun munti doon saa waaye dafal erreur wala nga def penalty ñu génn waxoot yàlla rek a tax loolu sénégalais xam na ñu demee mais naa feq yi parce que tamit nee nañ noonu naa feq yi noonu naa feq yi bàyyi naa feq du ñu nangul lu ñu bëgg naa fekk na pexe bu nekk lay lal. ñoo gis ay naafeq yi dañuy bëri ñii ay waxkat nañ ñii ay journaliste ñii ay animateur ñii ñeneen ak ñeneen ñoon ñooy wëlbatiku naan kii boppam la fi nekkal wala saawaay ñun booy bu ñuy tuut tànk saawaay nañ dal si ay millions façon maani bu nekk tim nañ ko ñun xaalis jaaxaluñu jommaluñu yaa ngi dégg xaalis ñoom la tiital quoi mais ñun dëgg moo ñu jaaxal suñu réew normal jag te yàlla rek a tax Sénégal normal law ba faaw xéwal bànneex taw feex si ñëpp loolu moo jaaxal loolu la bëgg mais pas saa ay intérêt wala ay xaalis wala waree fa waa mais xanaa. ma fi mais xalifa ko parce que émission bi jeexagul. mer booy yàlla ji kontaan. émission bi jeexagul mais mais sa digganteeg Serigne Moustapha sa digganteeg Serigne Moustapha Dramé yàlla kese gis nañ la nga def benn vidéo yow ak 6000 problème nga ni ku ko laal laal ñu. waaw parce que ñun ñëpp non booy dinaa wax benn affaire de boo gis na Sénégal. gars yi dañuy mën a normal nekk nit ñu teg bagage si yoon ñun ñëpp ñu nekkandoo nit du dëgg. xale est-ce que yow yaa ñàkk normal ñun ay seetu nañ. lu waay indi fekk ko man gis nga yow doomu Sénégal nga gis nga boo tëboon tëb saa ma xam la asaar na maa am sa kaw damay génn dénoncé ko sama rap yi loolu la mënul supporter injustice. Ah, mais sëñ Moustapha kenn acharné wu ko sëñ Moustapha kenn acharné wu ko. non sëñ dañ jég saa yi benn jamono ay saa yi moom gis naa ne alhamdulilah bàyyi nañ ko. te nañ continuer di ko bàyyi nekk si jaam salaam yaa ngi dégg mais toog nañ benn jama jamono acharnement bu amul fenn am si kawam ñu ngemb ay waxkat ay animateur ay comédien rek ñu ne. ñooñu ñooñu ñooñu ñu ngemb ñan la parce que man Khalifa dama bëgg bu ñu wax ñu la sëñ Moustapha kenn kenn kenn kenn acharné wu ko parce que moom mooy génne di wax bu waxee loo xamante ni peut-être sénégalais yi d'accord uñ ci am nañ droit tontu def. waaw dama ni la dama ni la dama ni la loolu yëpp dëgg la mais dama ni la tey si tey mooy xam nga nit loo leen mënti seq seen vie privée yéen la ko quoi ñun toile bi on s'en fout suñu yoon new si mais xam nga boo dajalee nit yooyu yëpp ñuy ñëw maanaam di dajaloo naan non kii seexoon nañ lii wala defoon nañ wala xam nga rek di expliquer ay affaire yu bëri yoo xam ne maanaam yow tey seen nit boo doon nit sax te yàlla rek a tax mais boo leen seexee yenn affaire après bu jeexee jeex na ko quoi. même loo ko munti mere wala dara wala bu nga fayee xaalis war nga gore ba a ñëw si toile bi di wax wala yooyu yëpp ay acharnement la ay façon xeetu xeex la parce que lekk Sénégal booy dëkku naa fekk la malheureusement naa fekk yi dañ fees dell bugguñu ku dëggu te sëñ Moustapha Dramé man personnellement xam naa ko ku dëggu la waaw te tamit xaalis dugalu ko si affaire yi yaa ngi dégg voilà dafa ñëw au contraire pour dimbali maanaam sénégalais yi xama kon sénégalais yi muy dimbali saawaay ñun xam na ñu mu demee yow mën nga nekk ni homme de média kese ma man du ma homme de média man homme de terrain la man lu ma nekk si terrain moo ëpp lu may nekk si presse bi ni presse mu si génnee wax si nii en tant que artiste rappeur porteur de voix bu jeexee jeex na après maa ngi si taan bi maa ngi fu ne laay dugg saawaay yi lépp luy bud budu si taan bi yëg nañ ko xam nañ leen ñoom ñëpp A ba Z parce que taan bi dafa xat potu ndox la saawaay ji yaa may dégg bu baax voilà moo tax ma ne la mënu xeexal la te yàlla rek a tax te yàlla saa waay dëgg mooy mujj du dëgg voilà. te nii dafa gëm boppam gëm li muy def gars yi ko coob du yoon di nga ko nangu te jàmm ju nga ko may yàlla jàmm sax yàlla na jàmm sax si Sénégal bi yëpp si ñëpp quoi yaa salaamu. Euh, Bamba Fall ma dégg ñu nii dafa am benn terrain ak benn école boo xamante ni daf ko euh, daf ko kii ko jaay ko daf ko jël jaay ko. booy Bamba Fall ay terrain yu mu jaay yooyu moo gën a ndaw si ay mafiaawam saa waaj. ba école bi nga xamante ni sunu doom yi sunu xarit sunu rakk yi foofu la ñuy jàng. Bamba Fall toj fi jàq ba mu bàyyil école yi. Ah, que man gis naa benn jour say sorti ni Bamba Fall dafa jàkk def fa xaw ma jàll de xaw ma lan la fa def. Baye Fall jàq néegu yàlla laa la wax de néegu yàlla fi imaam di toog di kàbbar jiite gars yi di julli marché Tilène fii rue 25 jàq boobu la toj jël place imaam bi daf ko douche est-ce que dégg saa waa ji booy ku tëj néegu yàlla booy xem na école école Osan ah, ah, fu mu nekk école loon Osan Gibraltar fu mu nekk noonu école loon école booy booy yow saa waay booy Bamba Fall si gàttal booy lépp booy li nga xamante nii public la parce que nu mel naa moo ko moom lépp presque man la sum waay plus de quatre-vingt-quinze pour cent lépp la toj yenn toilettes yi daal kusum fee nekk saatu rue un rue trois bi noonu la bëggoon toj population. kusum bi gars yi gën teg si baxen ne toilette yi doo ko laal espace public yi doo ko laal parce que espace public yëpp lay jaay bu ko jaayee def ko ay magasin yi saa mu def si lu ko neex lépp après chaque mois moom mooy engagé xaalis boobu noonu bàyyi saa waay ñun lu ñuy wax saa waxantu wuñ de yaakaar naa depuis ay mu weer si ginnaaw yàgg nañ ko accusé ne ko yow sàcc nga te maa la ko continuer di la ko wax nee naa ko bés bu ñu duggee bureau monsieur le ah, su boobaa la preuve yëpp di génn jotoon naa publier ay documents si net bi document yooyu noonu benn genre xoola bluff la lekk document originaux xam nga yaa koy génnee incha allah bu demee ba ñu jëlaat suñ mët naa na ñuy dajaloo def suñu plaint yóbbu ko mu génnee lépp leer nañ yaa dégg wala incha allah bu sàccee du sax gañe maintenant lu mu sàcc sàcc du gañe maintenant incha allah parce que waa maintenant yeewu nañ dossier yooyu noonu yëpp xam nga yooyu génn su ma porté plainte ñu dem si bureau monsieur ñu génnee dossier yi wan ko ni sàcc bu ñàkk jom nga essai boobu booy booy am maintenant dafa ñaaw booy léegi da ngay gis sax muy forcer bilan naan ay tali maintenant yëpp defar nañ ko. yaa ngi dégg kon tey si tey ma Fall depuis ay weer si ginnaaw bi nga ko yàggee wax ni sàcc ngaax lépp demul porter plainte demul def dara lu dul ngemb ay samba booy ay woy yu tekkiwul dara ñoo xam ni seen ndey liggéeyuñu ay vaurien nañ. ñu ngi gis si mbedd bi di ñu saaga di ñu jéem a attaqué est-ce que yaa ngi a waaw te na porter plainte dëkk bi dëkku yoon la wala mënoon na porter plainte quoi ñu dem si monsieur bureau monsieur le juge ñu leeral lépp ñu wane ni sàcc la su waa monsieur le juge xool ba xam ñun daf ñuy tëj si wax dëgg ah wala moom daf koy jël moom tëj ko ndax sàcc est-ce que yaa ngi dégg voilà Bamba la sum waay koo xamante nii bi muy doog ñëw maintenant fii. 31 angle 26 locataire la woon néeg bi da ko bokkoon 40 la woon fay pour mu fay sax problème la biram saasum si moo si doon jàppale. mu dem ba ñëw gaamal la sum waaye am fi plus de neuf villas si Dakaaru Njaay fii Jal Diop fii la génne naa lay xaw ma ay ku newaat am naa neuf kër xaw ma dama lay porter plainte yaa mën a fen foo toll si loolu. sàcc la a wii a ngay àgg Sidi Jamil am na fi immeuble yaa ngi dégg Bourguiba am na fa immeuble. yi am na fa immeuble est-ce que ay dégg lépp xam na ñun mu demee ñoo la gën a dëkk si dëkk bi fuuf dem dumburu Macky Sall ak Marème Faye Sall taxul nga gën ñu bokk si dëkk bi wala nga gën ñu xam dëkk bi. yaa ngi dégg te par la force incha allah yàggatul xoola dina jóge maintenant abal ñu si jàmm ak salaam ñu jël ko maanaam yóbbu ko chambre neuf wala dix dix chambre criminelle yi foofu mooy place am waaw may ñu suñ jàmm quoi yow lan la booy ñun maintenant ñun booy du ñu ay ragal booy booy booy li am maintenant dafa booy dafa ma naqadi booy. en tant que porteur de voix moo tax nga war a oh, booy booy booy booy li am maintenant booy da ngay génn booy di la saaga booy. ay booy yoo xam ne booy tekkuñu dara booy di nga booy booy booy Cheikh booy moo tax Cheikh Ba booy Cheikh nit la borom baax la. waaw mais ñi booy ba xamal la benn affaire Cheikh Ba bu ñu déggaloon ji mu déggal booy fii heure bii nii Bamba bu génnee wax benn wóyom ne ko saawaay dama defi lii wóyu boobu wëlbatiku saaga ko ndey moom. parce que ñoo leen gën a pare foog ñoo gën a xam dëkk bi ñun fu ne farag nañ fa Bamba Fall man gëdoo laa doon farag man fu ne dugg naa fa si taan bi est-ce que ay dégg seen yi ñuy def man jaaxaluma la preuve ba nii ma wax ak yow xool heure bu ma neex laay dox si maintenant bi aw ma sens interdit fenn te benn benn danga leen di romb seen koñ yi booy xool ñu lay xool du ñu la wax dara même su fi ñu nekk mbooloo booy dajaloo di la saaga booy di def ay affaire nga taxaw booy bàyyi pour ki wax ñoom yaa ma gën a ñoom ay xeer nañ am te ay wuyu nañ seen ndey liggéeyuñu seen ndey naa la ñoo doon cagatu démb fii si maintenant bi maintenant ñëpp xamante nañ man sama yaay booy saa waay xoola ancien cadre la bés yaa yaa ngi dégg directrice ressources humaines yaa ngi dégg sama baay tamit noonu booy du max ñoom quoi est-ce que yaa ngi dégg bokkuñu sax wéy mais tey see malum bu ñu waxee dañu war a wax parce que ay porteurs de voix nañ artiste rappeur est-ce que yaa booy booy ban. xali xalifa xalifa xalifa xalifa. xalifa woo man maa la invité. da ngay da ngay da ngay dal quoi da ngay da ngay dal mais bu la met da ngay da ngay dal da ngay dal da ngay dal wala man ni nga def gaa ci plateau man maa la koy def. booy booy maintenant booy nee la man li fi am dafa ma metti quoi barki alxuraanul karim te baa ñun nañu wax dëgg te yàlla tax de dañu wax dëgg booy ay porteur de voix nañ lanceur d'alerte gis nga lii bu continuer saa waay ñaanuñu ko yàlla ay meurtre Medina loolu booy kenn ñaanu ko yàlla est-ce que ay dëgg mais liy raam si ñàkk bi la jëm naa moom Bamba Fall bu ko jërelee benn ñun jërel nañu dix mille voilà saa waay. xalifa xali. xalifa yow lan la loolu dal la. te kaa ma wax la ji nga benn affaire. gis nga saa waay bu gañoon élection yi nii sax du ko jik lu garaaw laa wax ak yow nii. bu gañee bu gañee bu gañee élection du àggali mandat du def sax six mois mandat xanaa boobu gën a dee. moo tax du ko def. yow pare booy lii raam si ñàkk. mais artiste artiste yi nga xamante ni maanaam te ñu nekkoon ak Cheikh ba su suba démb gannaaw gala gannaaw suba ñu gis leen ñu daal di dem ci Bamba Fall. ay deux plus ay dumuru ay kanaara ay këtt gen du ñu gàtt dëkkatuñu sax Medina ñu ngay wax ni dëkkatuñu Medina booy ñu ngi jiili mbay. Iba Mar Diop fii nii pour nga feesal ko waa Medina ñoo lay ñëw jàppale te waa Medina yëpp si Ahmed Tidiane ba misi nañ àndal booy Sooru baa ngay wax il m'a déçu man booy fii nii man booy booy samay booy nañ mais nag man si dëgg laay àndex nit. yaa ngi dëgg moom heure bi moom mi may daw ma bëggoon léegi su ma ko woowee téléphone du ma jël. lan moo tax du la mi may daw te mus naa laal vidéo di ko jàppale. est-ce que dëgg voilà mais tey si tey li def noonu maanaam du yëfu ngor du yëfu nit ku baax. nit ku baax da ngay gore Cheikh Ba defal na ko fi teranga bu ne en tant que artiste bi mu nekk homme public yaa ngi dégg yow rek yaa ko wax saawaay mii sa gaan bi nga àndal nii du dëgg moo ni dernier meeting Cheikh ba mu ñëw fii maintenant mu ngi. dafa woon naan mooy seen baay. du du yéen a ko wax te yéen doxoo leen maintenant du dëgg boobu du gàtt du dara ki se ressemble nag sa semble ñi nga xam ne ñoo bokk jikko ak Bamba ñoom dinañ ànd ak Bamba Fall quoi ñu jëlee leen maintenant Soriba dëkkatul maintenant di jiinu may la dëkk. yaa ngi dëgg neen day dóor Sadio Ibrahima Diop naroon nañ ko si jàppale mais jàppale wuñ la. est-ce que dégg presse bi yéen ñëpp ñëw leen Iba Mar Diop la 14 ngeen ngeen seetaan quoi ngeen xool ba xam gars na nañ ñëwal duñ ñëw lépp dina leer quoi est-ce que dégg tey seenax mooy lu ma la wax maintenant des valeurs les principes ba sox ba gars yi ànd moom si conviction ngor est-ce que dégg pour deqilaat maanaam bonne valeur yi si maintenant voilà euh, mais noo gisee équipe nationale. noo gisee équipe nationale bi ak euh, ci kan bi nga xamante ni ci lañ. mais gars yi ñu am chance booy macha allah alhamdulilah waaw mais nag ndam lu neex la ndam ndam la penalty fin temps loolu gars na chance la de yaa sa alors gars yi nañ gën a dolli maanaam jom fit fu lax fayda waaw gën a dolli maanaam pas-pas Aliou Cissé tamit gaamal la sum waay xam nga na gën a maanaam yokku cere dolli ñeex gën a. saf-safal bagage yi gën a xool chemin technique yi xam nga waaw leen wax ni rek maanaam bon chance quoi yàlla na Sénégal gagné kan bi incha allah si jàmm ak salaam. lan ngay tàggatoo ak sénégalais yi ak lan ngay wax la nouvelle génération parce que dëkk bi gis na jikko yi yàqu na quoi sincèrement euh, loolu mooy doon sa kàddu gu mujj. waaw alors à tàng làmmiñu askan wi noonu naa fekk yi te yàlla rek a tax dund leen dëgg. dëgg moo ñëkk te moo mujj. est dëgg waaw yoonu dëgg moom saawaay yoonu mbaax ku si nekk saawaay doo wéet doo jaaxle doo tiit doo rafle te doo woyee di du dëgg beneen yoon boo munti nekk bu dul yoonu dëgg yaa nax sa bopp yaa ngi si ay caaxaan. waaw jeunesse bi nañ ko nandee noonu xam lu ma la nii waaw te tey si tey tamit yàlla yàlla maanaam saxal jàmm ak salaam Sénégal sàmm te aar ñëpp te musal ñu si sàmbaaboo yi parce Sénégal dafa am benn genre lobi benn genre ay mafia ay malfaiteurs ay soldaaru seytaane ay nit yu bon yu tekkiwul dara yées su mel ni Bamba Fall nit ku bon la barki alxuraanul karim booy ma xamal la benn révélation ma gis nga ay employé am booy tëbakat dal noonu di dafay affaire ñëpp ñu si am jabar tëddee na seen jabar yi di wër Medina booy demal nga récupérer sa jabar yaa ngi bàyyi sa jabar fee France mu dëkk si maison d'accueil yi sonn jaaxle ah nga abandonné booy kooku du nit ku baax booy di wër di tëddee xale yu jigéen yi mauvaise valeur yu salte yooyu yëpp nañuy xeex jëlee ko maintenant dafa ñaaw booy maintenant kenn mënul wax lépp booy li fi am kenn mënul wax lépp te moom kese mooy jiite lépp benn si ay nitam même man la sum waaye moom bras droit am te amul sax bras droit wóoluwul kenn kuy def lu bon doo wóolu kenn yaa ngi dégg bras droit am sax laa lay wax sañul ñëw jug taxaw si Médina bi def benn affaire wala jël benn responsabilité pour wax dara lépp lu nit wax wala lépp lu nit def Bamba Fall moo ñëw sant ko ko def loo ko ko parce que la dafa am fit wuyu la nit ku garaaw la barki alxuraanul karim billaahi wallaahi watallaahi gan gi dama yàgg di ko étudier ba nii may wax ak yow démb nax Gibraltar bi mu dajalee ay booyam nee leen booyee ñu ëpp fuuf mais booyee bi ñu ñëwee noonu ba ñëw ne ko yàlla duñ dugg booyee ñëw jëflante kaax booyee ñëw ba buntu këram waaye gàcce boobu il a été humilié booy chez lui say dëkkandoo ñëpp seex ba nañ àndal mu génn booyee man la sum waay ruus parce que xam nga seex ba bu ko fekkee gàcce boobu xëy na day dee rek mu génn forcé jéem a xool nu muy demee yoonam mais Bamba Fall toskere ñeel na la yàlla nañu yàlla musal si yow. képp ku nga xamante ni maanaam si Medina parce que Medina instant yi Bamba Fall Cheikh ba nañuy wax du dëgg te askanu Medina wala ñëpp ñi baax si askanu Medina Cheikh ba nañ àndal li ëpp si askanu Medina ñëpp Cheikh ba nañu àndal waaw parce que ba nañ gis mu nekk doom Medina yàgg ñëw di xeexal Medina di jàppale Medina te kenn sant ko ko te kenn dénk ko mairie tamit du dëgg waaw gàll yëpp un ba quarante cinq ku si nekk Cheikh ba booy def na teraanga si gaale yi lu mujjul ak xale yi tout tànk maintenant bi yëpp bërki demoo Njaay mi ngi leen di jox ay cadeau loo xam ni booy ñu ngi koy doog a xam booy bànneex boobu est-ce ay dégg booy Bamba di toroxal jeunesse bi booy est booy booy li am maintenant daal dafa ñaaw léegi daal si gàttal Cheikh Ba ak Bamba Fall képp ku nga xamante ni maam ki si gën yàlla na la yàlla jox Medina incha allah 23 janvier. te loolu suñ ko ñaanee dañ ñaan amin lekk xel yi dal benn yoon yaa ngi dégg parce que yàlla dalu Cheikh Ba sax moo ko gën Bamba Fall ku soxor la ku bon ñaan mais gis nga xoola yow boo dee yàlla lekk tawal bulat yow ñu lekk boo yoree suñuy bakkan lekk rey ñu benn yoon voilà tous saawaa ji ñebe muy budbud yi saawaay di budbud yi si dëgg lekk fi yàlla kese fi ne nguur fi naa sax daanu na asamaa yow sa nguur bi gaa nga xam ni gaa man la sumbaay nii matuñu sax deux cent personnes te Médina ñu nekk plus de cent mille Médinois wala boog ñu ay ngaaxa booy alors maa lay bëggee maam Saliou di leen bëggee yéen ñëpp di bëggee Sénégalais yëpp yu sedaan di wax ni nag gaamal la sumuwaay message bi yàlla na ko yàlla maanaam jàllale tabal ko si xelu nit yi ak si xolu doomu aadama yi ñu xam ne ñun dëgg rek nañuy dund te triché wuñu amee lu ñuy metti dañ koy génnee te lu ñu metti si Médina moom nañ génnee nii quoi yaa ngi dégg yasaay ñaan yàlla ñu dégloo ñoo xel ak xol dégloo ñoo xel ba ñu dégloo xol lam ñu askan wi noonu naa fekk yi dommit naa man la sumu waaj ya toos ñebe voilà ça fait plaisir euh, ma bokkoon ak moom euh, plateau moom mi nga xamante ni euh, moo di xalifa rappeur mu ci nag ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ni <coughs> seen seen maire bi nu tudd Bamba Fall <laughs> voilà mu jëmale ko ci tur borom tur bu sell boobu Bamba Fall waaye en tout cas yéen a ko déggandoo moom Khalifa lépp lu nga. daa falsifié ba falsifié turam Bambaale la tudd Bambaale. et voilà mi ngi noonu yéen a ko déggandoo moom Khalifa mu yëkkati ay kaddu jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di Bamba Fall ak Cheikh Ba jëmale ko ci ki nga xamante ni moo di askanu Sénégal naka la Sénégalais yi war a dundee na moom dëgg ko ñor te dëgg rek lay véhiculer donc rendez-vous très prochainement ak beneen daanaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñi ngi woon fii biir Medina fii la dëkk neexee man léegi sax Medina laa dëkk incha allah rabbi rek mi futal lan. à tous noonu la demee dafal teew ñu moom a neex mais nag foofu tey si tey xam doom kusum laa waaw kusum mooy maintenant mais kusum ngaraaf dames jàppoo sancaba dégo péete guy salaan maintenant daal mooy Sénégal te xam nga ñëpp maanaam tey si tey yeewu nañ pour maanaam une nouvelle Médina une Médina smart intelligente xam une Médina développée une Médina moderne booy tali saa waay lépp leer nañ dëkk bi set lumière yi ko ñu tamit leer nañ emploi des jeune booy ñu jëlee fi chômage xam nga maintenant bi ñëpp daal si gàttal yeewu nañ ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba Messi yaakaaru askanu Médina ñu jox ko suñu Médina mu def ay preuve bu deful ay preuve am laa mi ñu askan waaye fi dëgg bi di but buti lekk dëgg lekk te mu te te te mooy mujj te moo neex yàlla toos mooy bóot bóote waaw. et voilà ma nga noonu moom Khalifa wax na kàddu yi am solo incha allah rabbi très prochainement ñu ànd ak euh, Abdou Saliou fii ci biir euh, biir univers info nee naa la euh, mu doon ay xale yoo xamante ni liggéey moo leen tax a jóg ay xale yoo xamante ni Sénégal moo leen ñor waaye nag da ngeen ciy ànd ak Abdou Saliou mister sama cadreur ba mag bi maa ngi ko di char ki nga xamante ni moom defeyaan la moom des fois di koy defeyaan moo ko neex taalibe Serigne Saliou boobu du noonu. Euh, très prochainement ci kàttu yàlla ak maa xam yow li ma xamal bu ko waxee <laughs> noppi naa